fas yéene dikk ak yéen ci seen xikmatul mi bi ñu leen baaxoo andil bis bu nekk ci kàttanu yàlla ak ndimbalam ak tawfiixam seen mbokk saalix si di ko defal ñoo ngi àddoo fi ci mahad xikmatul yawmi li tarbiyal islamiyya wa taalim markaz Cheikh Mouhamadul Mourtada nekk Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 tey ñu fas leen yéene xekk ma bu amati solo te mooy jiital ndokkeel jullit ñëpp ci weeru tedd wi ñu dugg di zil xijja nag dafa bokk ci ñeenti weer yi nga xam ne ni ñoom la ñuy wax ashhurul hurum nga xam ne nii dañ leen a wormaal lool lu jiitu lislaam sax arab yi daawuñ ci xeex daawuñ ci defit ay ñaawteef muy sulu xixda ak sulu xijja muharram ak rajab moo tax eh, sëñ Tuubaa di wax zu xixdatin zu xijdatin muharramu wa rajabul fardi shuhurul xurum eh, kon muy weer wu tedd boo xam ne li ci nekk ci ay ngëneel mëneesu su ko lim waaye nag li ñu ci tax a jóg ñun ñu bëgg koo yaatal fan yi lu ci lu ñu ci suñu borom tabaaraka taala tawféexale mooy wax ci xew yi nga xam ne ni mooy xewu tabaski xam naa moo ci gën a yitteel njaayeen yi njóobeen yi ak séeréer yi itam kon danañ ci andi incha allah lu ci jàppandi rek ay tomb def ko ñaar ba fa ci euh, fa yemale ci tawféexam ñoo ngi ñaanam dafa ñu tawféex joo xam ne ni nag ju yaatoo yaatu lay doon ñu bokk ko jullit ñëpp jariñoo ko ñoo ngi ñaanal kooku dégg ku nekk nga mën koo jottale sa mbokkum jullit ndax njariñ li gën a mën a yaatu di ko liggéeyalee tamit Cheikh al Xadim sunu yaakaar ah, kon xam naa tey dañuy andi lenn ci xikma bi nekk ci lan mooy Iidul Adha maanaam tabaski ak xikma bi ci nekk eh, ak tamit lenn ci cosaanul tabaski ci boppam waaw tabaski sunna mu akkada la maanaam sunna la soo xam dañ koo feddali lool ba nga xam ne nii bu fekkoon ne jullit ñépp wala ab dëkk ñëpp defuñu ko kon kafa fa nekkal diine sañ naa jóg jàppante ñoom ci ñu def ko waaye bu ko ñenn defee itam ñi ko mën mën nañoo yóbbaale ñi mënul waaye na su ama am solo la su dëgër la itam li tax sun borom tabaaraka taala digal ñu ko nag mooy ab jullit li ko war rek moom mooy lépp lu ko yàlla digal mu def ko lu ko yàlla tere mu bàyyi ko doonte xamut la tax yàlla digal ko wala la tax mu tere ko kon imtisaalul awaamir wajtibaahu nawaahi moom dañoo war wa ala kulli haal waaye loolu lépp teewul suñu borom tabaraka taala lépp lu mu digle boo ko seetantalee da nga gis njariñ la tey ëllëg lépp lu mu tere boo ko seetantalee danga gis lorja tey ak ëllëg ah cosaanul tabaski nag suñ borom tabaraka taala moo doon nattu ay jaamam di natt seen pas-pas doon te xam na ko suñu borom dafa baaxoo def noonu ak i jaamam gis nga sax day wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alxuraan ne ko nit ñi buñ jàppoo ne dañ naan gëm nañ yàlla rek dugg nañ ci lislaam rek te yàlla du leen fitnaal deret yàlla dana leen nattu ba génnee ci ñoom jullit ñi dëgg-dëgg ñi nga xam ne wax nañ dëgg ak ñi nga xam ne ni ay naafiq lañ loolu la jariñ mooy mooy ñun ñi nga xam ne nii euh, xamuñu ñu xam waaye suñu borom moom xam na kon li muy seet ak laaj moom xam na ko bu baax a baax ahasiba annaasu ay yutraku ay yaqulu amana wa hum la yuftanun walaqad fatanna allazina min qablihim fala yaclamanna allahu allazina sadaqu wala yaclamanna alkazibin gis nga yonent Yàlla Ibrahima alayhi salaam ba mu waxee sunu borom tabaaraka wa taala ne ko damaa bëgg nga wan ma nooy dekkalee lu dee sunu borom daan ne ko Ibrahima xanaa ndax da ngaa gëmul mu ne ko ah kay waaye damaa bëgg ngëm gi gën a dëgër. wa id qaala ibrahima rabbi arini kayfa tuhyil mawta qaala awalam tu'min qaala bala walakin liyatma'inna qalbi waaw kon loolu suñu borom da koo baaxoo jëfandikoo ak i jaamam ndax yoonu yàlla moom wa ala kulli xaal képp ku ci jaar rek da nga dajeeg ay fitna dajeeg ay nattu yu suñu borom tabaraka wa taala moo tax mu ne walan tajida li sunnatillahi tabdilan suñu borom aw yoonam kenn mënta fexe ba mu tabdil ko maanaam du ko soppi mu ko du ko changé walan tajida li sunnatillahi taxwilan wax na ko lu bari alquran aw yoonam it du ko du ko du ko soppi mu ko la fa nekkoon a nga fa kon tabaski kenn ci jaami suñu borom yi ko ñu wax sayiduna ibrahima alayhi salaam moom la suñu borom tabaaraka wa taala doon nat ibrahima dafa toog lu yàgg diirub ak ndawam suñu borom xañ ko ak njaboot waaye masta naagu nag di ko ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mosu cee découragé mosu cee désespéré am demee ba doon mag nag suñu borom daal di koy may ay doom yu ndaw yu baax yu rafet yu yu soppulu lool muy isxaaq ak ismail moo tax sax gis nga ba muy sant dafa wax ne maa ngi sant yàlla mi ma may isxaaq ak ismaila ci sama màggat alhamdulillahi allasi wahaba li ala alkibari ismaila wa isxaaq inna rabbi la samiu du'a daal wax suñu borom ko ndeke ab nangukatub ñaan la kon loolu bokk na ci cosaanul tabaski incha allah bu ëllëgee ñu andiwaat ci yeneen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 in uridu illa al islaaha mastataxta ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim